waxuñu laajuñu keneen candidat am. waaw ñun li ñuy wax mooy ndax Macky Sall. Ah. day nekkaat candidat wala déet. waaw léegi nee naa laaj bi loolu rek la. waaw waaw léegi. mais laajuñu leen léegi da nga bëgg ma tontu la. waaw nee naa la négal ba ñu par pare local yi négal ba ñu pare waxi législative yi parce que bu leen fàtte ni que problème boobu dafa am ci mooy que législative bi dafay empiéter léegi ci mii mandat bi. donc cinq ans yëpp dañ ko nekk leen nekkal ba ñu réglé problème mu ñaari élection yooyu noonu buñ ko réglé man bu ma ñëwee fii bu ma toogee boo nee ma Mambaye ndax candidat la dinaa la wax waaw wala déet lii nga ma wax loo defe ne dama ciy rocceeku wala di mooy ki man maa ko wax. d'accord loolu leer na Mambaye dañu nekk nag ci jamono boo xam ni violence bi ñuy dégg yaa ngi koy gis. Mhm. ay bakkan yu yoo xam ni ñu leen di rayé dafa dafa ñaaw. Mhm. Euh, te loolu li ñu koy dégg ci jamono ji moo ëpp sax li ñu ko daan dégg bu njëkk. Hmm. ndax loolu seen gouvernement mu ci responsabilité ci ñaari yëf. Hmm. Euh, bi ci jiitu mooy ci insécurité. sécurité lañ doon xaar ci yéen sàmm nit ñi sàmm seen alal. Hmm. loolu gisuñu ko beneen bi ci des aussi mooy yi ñu ciy dégg yu ci bëri euh, xëy na est-ce que du jafe-jafe ci wàllu emploi aussi moo ko indi ndax jombul ne li président digoon ndaw ñi bu leen ko joxoon. Euh, jafe-jafe yi ñuy jànkonteel ci wàllu yenn fitna yi du du du am. non non xam nga violence moom ak euh, forme bu mu mënta nekk dañ koy condamné. Mm-hmm. defe naa amul benn doomu aadama buy nangu ñuy faat beneen doomu aadama ci lu yoon tënkul. Mm-hmm. doomu aadama moom li mën a jël bakkanam yoon da koy tënk am mooy mu doon dëkk boo xam ni dañ naan ku def lii ku def lii. mais mm-hmm. keneen ku faat doomu aadama ci beneen fànn rek dëgg yàlla loolu dañuy jàpp du lu baax. du luy defar du du lu baax ci ci société. mais ma jàpp ni tamit nañu xool bu baax am na ñaari yëf yoo xam ne il faut ñu xool ko euh, mënuñu ci tudd état bi rek parce que jëkkër bu rey jabar defe naa loolu état bi pratiquement amu ci. Euh, responsabilité boobu ñu ko mën a jiiñ ñu assuré wul sécurité. mais psychologiquement ouais, psychologiquement la question qu'il faut se poser. li ñu war a laaj suñu bopp. mooy ñun ni ñuy dundee lan moo ci soppeeku ba nit ku ñemewul woon def yenn yi ñeme koo def ñàkk rek du ko sabab ni ñu daan dundee. Mm-hmm. am na lu ci soppeeku lu tax tey. jëkkër mën a rey jabar lu tax nit mën a jël paaka ngir ñaar téeméer wala juróomi dërëm mu jaral ko wala nit mën a dem dagg boppu nit pour def ci leneen donc am na lu changé ci ni ñuy mm-hmm. Mm-hmm. ñaar rek koy tënk mm-hmm. ak aada lan nga wax ci diine diine ak aada soit li ñu ñi ñu ni ñu gëmee woon gëmeetuñ ko wala aada bi am na luñ ci bàyyi parce que bu demee ba def lu ñaaw nit jommatu ko problème am na bu demee ba nit sàmmatul digganteem ak yàlla problème am na loolu problème de société la du état bi rek ñun ñëpp ci am responsabilité. mais état bi moo ciy jiitu. non état bi ci li mu jiitu déedéet état bi ci li mu bi état bi lañ ko état bi état bi ci li mu fii état dañ naan la l' état est laïque tey jii bu la neexoon nga samp fii bon. comme que bëgguma tudd la nit am na ah. droit samp fii xërëmam. Ah. di ko jaamu. mais dina dina laaj autorisation. Euh, déedéet état ah, déedéet. booy samp dara ci ci mbedd mi. déedéet ma ne kum neex nga samp lu la neex sa kër jaamu lu la neex. ok loolu mooy laïcité. Mhm. mooy est que gestion wu état bi jëlul diine en mhm. kon da nga rax danga jàpp ni ay diine yu bees dafee. non non du dama la jox dama la jox li ma la bëgg a wax mooy. waaw xam nga da nga ni ma rey yi dafa bari. dafa dafa bari te ñaaw. dafa bari te ñaaw. voilà. donc lu fi amul woon. par exemple benn nit nga jël juróom fukk ak ñeent ci ay paaka di ko ko waaw loolu loolu dafa atroce. waaw moo tax ma ni la loolu pour mu mën a nekk mooy est que mentalité nit ki moo changé. Mhm. et nit ñaar moo koy tënk ngëm-ngëm ak euh, aadaam. Mhm. xam nga am na ay aada yoo xam ni loolu nangu nañ ko. d'accord wala dañ koy encourager wala am na ay ngëm-ngëm yoo xam ni loolu mën nañ ko moo tax ma ni la ñaar yooyu lañ war a saytu muy ngëm-ngëmu nit ñi diine nit ñi ak aada yi ñu tënkoon ba doonoon barrière pour que yu mel noonu di fi am loolu mooy première analyse bi ñu ci war a def beneen bi nee nga est-ce que ñàkk bi taxul. Mm-hmm. defe naa ñàkk aussi. ñàkk xëy surtout. non non mais ñàkk xëy surtout. papa ngañ da nga ma bëgg a wax loo politique rek. Mhm. man duma bokkuma ci ñiy miim naan euh, problème mu emploi amul ci réew mi. Mhm. problème mu emploi am na ci jeunes yi problème mu emploi am na Sénégal problème mu chômage am na Sénégal mais boo ma ko waxee dama naan la bañuy ñëw. fii lañ ko fekk tey jéego bii lañ ci def ndax matale nañ ko matale wuñ ko buñ ko matale woon duñ demander deuxième mandat mais dinañ ci mandat bi nii ci liñ campagne boo demee déglu ko am na ci un million d' yoo xam ni ñi ngi teg ay pexe pour que un million d' yooyu am loolu moo ci suñu sañ-sañ mais neewuñu dinañ saafara lépp léegi beneen problème bi ci am mooy dafa am dafa am intervalle dafa am génération boo xam ni dina jafe trop parce que jàngal leen wees na jàngal leen métier wees na jàngal leen école wees na ñooñu il faut gab boobu ñu am fu ñu leen dugal mais ñii di ñëw ñi soppi nañ njàng mi pour mu mën a méngoog jamono créé nañ. mais ñooñu ku ci ñooñu aussi ñi ci ëpp ko jaayul yaa ngi jënd. waaw yaa ngi ci yaa ngi ci leneen loo xam ni. xëy na bu ñu ko yombalee. mu environnement boobu. non moo tax xaw a am jàppandal. non moo tax lu mel ni DER am. procédure yi allégé wu moo tax am tax lu mel ni ANPEJ am moo tax lu mel ni PRODAC am. pour que génération boobu parce que ki dem ba am ñaar fukki at jàngal ko mu dem jàngi école jafe na mu dem ba jàngal ko métier jafe na donc dañ koy wax xoolal ci service yi ci ci service yi nga mën a kii nan lañ lay yombale ñu jox état bi yombalal la ko jox la dara moo tax risques yi bari ñi ñuy lebal du ñu fay parce que dañuy essayer du sotti mais ni koy régler ci dans le temps mooy soppi njàng mi. et loolu def nañ ci jéego yu bari. Mm-hmm. matale wuñ de ñi ngi jéem a tabax yeneen ñaari université yu bees yoo xam ni ci yeneen xarala la ñuy jàngale nit ñi ñi ngi jéem a euh, créer ay ay ay ay ay centre de formation professionnelle pour que ñi nga xam ni sax duñ egg bac parce que ñu bari. Mm-hmm. diggante entrée en sixième ba BFEM la ñuy yab ñoo ñu ñu créer leen ay écoles yu ñu dem matagul mais commencé na. et lu ñuy gis la jëlagul ñëpp mais loolu ci diir bu toll noonu lañ koy lañ koy régler mais ñiñ fi fekk mu ni kët ni jon ñooñu ñooy wax ji. mais bu doon ci loolu ngeen jublu tegoon fële affaire terre ak mm-hmm. autant de milliards yi ngeen ci def. Mm-hmm. est-ce que gënul woon nekk priorité. li nga énuméré nii. non non ma mbay. non man aussi ci ci dama lay wax non dama li nga énuméré mu nekk lu social. am solo. Ah. est-ce que bu fekkoonte ni du loolu ngeen def bu ngeen ko defoon priorité. est-ce que du gën ci askan bi. mais def def ko priorité moo tax ñu jógee ci vingt mille places formation professionnelle dem ci quatre vingt mille places c'est-à-dire indépendance ba 2012 vingt quatre mille places formation professionnelle moo fi amoon 2012 ba 2019 quatre vingt mille places formation professionnelle moo fi am. indépendance ba 2012 ñaari université ñoo fi amoon yu taxaw yeneen yi ci yenn régions yi la nekkoon bon mën nañ jàpp ne que turu université la xew ma ñu fay jàng mais infrastructure yi taxawul woon bu ñuy egg 2024 ñeenti université yu mag ñooy taxaw yu mën a accueillir ñaari université yi dina mën a accueillir 120 000 étudiants mm-hmm. loolu ci indépendance ba 2012 lañ defoon ñaar 2012 ba 2024 dinañ am ñeenti université mhm. mais loolu Pastef lañ ko def ça veut pas dire ni que dañ jël xaalis bi di ko yàq ci terre terre bi mhm. peut-être ñiy wax dañoo xamul ma dellu si waat ci courant bi. non waxuma yàq man priorité rek laay wax. parce que da nga ma fi énuméré loo xam sax ma yaram sax daw na. ci jafe-jafe yi nga xam ne nit ñi ñu ngi koy am. yéene bi ngeen am ak saafara bi ngeen ci am. université yi ngeen ci war a def. man pour man loolu dafa gën a nekk priorité ay. teer ak lu kenn xamul lu tax teer bi war a bokk ci priorité yooyu. parce que tey umpul kenn ni que classe moyenne bi yokku na ñi am oto Papa Ngagne 2012 ak ñi am oto léegi xam nga ni du benn. gis nga ni que embouteillage yi même autoroute à péage bi malgré liñ effort yi ñu ci def yëpp autoroute à péage bi sax commencé na am embouteillage xam de léegi boo bëggee dem jas ci yenn zone péage yi mën nga fa def 10 à vingt minutes. ci loo xam ne xëy na 2013. 2014 non dafa nekkatul péage moo tax rek. non non péage la ba léegi non dafa bu dafa nekkatul péage rek dafa nekkatul dafa nekkatul autoroute à péage. non non su ko nekkee woon kay. xam nga ni doo fa gis yenn bouchons yi nga fay gis. man mi nga xam ne maa dëkk dans la banlieue. nga xam ne damay nekk ci yoon bi. pour def 3 heures de temps pour mën a egg ci guichet bi. voilà plus de 3 heures de temps. waaw xam nga xam nga boo defee 3 heures de temps et n'empêche autoroute. plus baa ngi dox kon donc oto yi yokku na ba que tali yi ñu am attanatu ko loolu moo tax mise ci terre bi am solo nee naa la jafe-jafe bi muy saafara dëgg dëgg dëgg fii ak fukki at la parce que fii ak fukki at diggante dakaar ak euh, Pikine Géejawaay Tëngéej ba jam ñaajo li fi dund ci ay sénégalais dina xaw a jege. 10 million transporter 10 millions de sénégalais donc 4 millions yi dañu am oto transport du am. mobilité urbaine bi day am problème loolu moo tax ñu xalaat def TER. Mm-hmm. ñu gis ni que TER bi doyul. Mm-hmm. ñu yokk ci BRT. mais loolu mooy planification bu fekkoon ni que defuñu ko priorité. Mm-hmm. mais kon fii ak 10 ans. ñun li ñu donn ci courant bi la kii ñeneen ñi di donn ci ci ci ci mobilité urbaine buñ loolu dañ ko yamuñu ci mobilité bi dañ ko def ci ndox def ko ci courant def ko ci santé nekk di ko def ci éducation mais li ñu ñu war a nangu mu eko loolu mënoo ko def ci juróom-ñaari at mënoo ko def ci fukki at xel mën naa nangu ni ko dangay ngay door. dégguma li nga wax de. ma ni mënoo ko def ci juróom ñaar mënoo ko def ci. fukki at mënoo ko def ci fukki at kon dafay laajaat beneen mandat nga eggale ko même laaj na sax ñaar fukki at. Mhm. cest à Sénégal bi ñu bëgg léegi léegi léegi. ci ñaar fukki at wala juróom fukki at ci ñaar fukki at ak juróom. yaakaar naa ni que war na loolu moo tax. président xalaat def PSE 2035 limite am. d'accord xam nga ak loo ñu ji ñetti mandat ñeenti mandat xanaa 2035 xalaatoo ni dinañ fi nekk. président Macky Sall dina ngi ñaan leen weddil dara man kay samay samay pexe samay pexe bu jubee suñu parti moo fi toog ba date boobu kon jeex na kon moo tax man du ma leen weddil dara léegi li ma la bëgg laaj foofu